coow li mooy feebar ñuy wax Covid 19. Hmm. dugg ci Sénégal am fi ay nit nga xam ne dal na leen. Hmm. Euh, mais yow daf la concerne directement parce que sa dëkk Vélingara. Hmm. dañu fa déceler ay cas. est-ce que mënuñ nga defal tey la situation exactement à Vélingara. Euh, jërëjëf euh, monsieur Cissé donc maa ngi leen di gërëm di leen sant d'abord di souhaiter une très bonne fête de l'indépendance euh, li ma bëggoon wax rek mooy. Euh, cas yi ñuy wax Vélingara euh, comme ni ngeen ko déggee à la presse que euh, yi dafa am cas c'est des cas importés cas yooyu dafa am sénégalais ñoo xam ne dañu nekkoon Libéria ñu ñëw ba ci frontière bi mooy Dialajan diggante Sénégal ak Guinée mooy poste Dialajan bu Sénégal police moo leen téye foofu loolu won na rek bi leen bi ñu leen téye foofu ba pare. Nous informer le préfet Je profite de profité l'occasion de euh, féliciter le féliciter gouverneur et surtout le préfet de Vélingara le sous-préfet euh, féliciter aussi euh, docteur Sane, qui est le médecin chef ak ses ses ses collaborateurs ses équipes parce que def nañ liggéey bu am solo. Euh, bi euh, bi police defee liggéeyam ba paré ba paré était c'est aussi rendre hommage aux forces de défense et de sécurité ñu wax ko préfet préfet jël jël matukay yobbu équipe district bi ak docteur Sané ñu jël leen en charge indi leen ci ben auberge teg bay leen fofu dépister leen ba pare dépistage bi wone la ñoom ils sont positifs damay fàttali ñom dañu doon traverser Vélingara waaw du ay wa Vélingara dañu doon bëgg a jaar ca traversé Vélingara ñëw bu la amuloon la vigilance de de la police aux frontières dina dina nek musiba donc loolu nañ leen di sant di leen gërëm euh à l'heure actuelle ñom yob leen ci benen structure bo xamné ne ngi leen jël en charge ci par rapport ak pour ñu mën leen faj loolu moo loolu moo tax ngeen dégg temps yi depuis barke depuis demb euh, barke demb euh, li xew Vélingara corona bi nak euh, dafa dafa inquiété euh dimay profiter ci occasion bi bi ma gërëmee ki docteur ak équipement ak le préfet de Vélingara ak sous-préfet ak toutes les autorités damay lancer un appel ci population bi xam man sama département département bo xamné né département bo mo gëna a exposé wu parce que département c'est le seul département qui a une frontière avec les gens qui parce que amnay def nañ frontière Guinée Bissau Guinée la ak Gambie Mali parce que forêt classée bi boo Mali donc ñun avons euh, ñun par rapport aux de la frontière donc acel appel bi may lancé la population nit no euh, euh, nit su dans le département. fépp fu mu war a fépp mën a jóge dafa war a jaar ci post de santé yi pour ñu wala ci centre de santé yi ci structure santé yi ñuy dépister ko parce que loolu bu ko defee def na lu xam ne ne loolu moo ko loolu moo ko waral loolu moo ko loolu moo loolu la war a def pour dem euh, que dépister wu pour mën a aar boppam ba pare aar njabootam aar waa gox bi aar aar Sénégal mais euh, su ko deful nag.

donc loolu message boobu laa bëggoon lancer ci message bu am solo la te maa ngi koy insister bu baax maa ngi gërëm sama waa collègue maire yu département bi la nga def maire bu nekk taxaw na def na jël def na ay matukaay maay remercier bonne volonté yi yoo xam ne ni ñoom ñëpp ñëw nañu di dugal seen loxo mooy jàppale ci lutte contre corona di coronavirus bi loolu euh, incha allah dinañ dinañ gagné euh, euh, bataille bi. mais wax mais tay dañu seetlu ni li gëna sonal nit yi bokku na ci li ñuy wax cas contact yi mais aussi la transmission communautaire. Mm-hmm. est-ce que ñi nga xam ne dañu jaar foofu Vélingara est-ce que ñi nga xam ni am nañu jot nañoo am contact ak ñoom euh, dañ leen bàyyi noonu wala ñoom dañ leen mettre en quarantaine pour suivre leen. voilà euh, xam nga ñoom euh, ci frontière bi lañu ñuy yem voilà loolu loolu dafa am solo pour ñu précision ñoom dugguñu dañ ñëw ba ci frontière bi police tey leen foofu. donc parce que état bi jël na ay matukaay yoo xam ne ne kuñ jaar ci frontière bi dañ lay téye mu xam effectivement fi nga jógee ak ak est-ce que yor nga fi wala yoroo feebar bi loolu moo ñu may chance donc ñom musuñu dem ba kii euh, euh, amuñu woon euh, dugguñu ba ci bir bam am contact ak population du département de Vélingara donc ci frontière ci frontière bi lañ leen téye té lolu vigilance police la vigilance vraiment préfet bi ak docteur bi ak docteur ak l'ensemble équipe l'équipe médicale donc tay à part ñooñu. Hmm. Vélingara mu ñu fa cité tay benn cas moo xamni amna liaison ak. amu amu amagul mu on dit en français je touche du bois. loolu amaguñu ko te ñu ngi ñaan yàlla vraiment yàlla nañu ci yàlla musal ci loolu musal musal yeneen région yëpp te ñi ñi ko ñi ko njëkk am ba pare yàlla may leen ñu wér ñaari yi ñu faatu yàlla leen yàlla xaar aljana yeneen yàlla may leen ñu wér affaire bi bañ a lay wax nga cas communautaire cas communautaire cas boo xam ne ne cas moo kaa ñu moo ñu moo ñu gën a inquiété waaw c' démb amuñu woon cas mais tey am na barki démb amoon na benn cas donc yàlla nañu yàlla musal ci cas communautaire parce que cas yoo xam ne ne euh, du cas contact du cas importé xamuñu vraiment euh, nit ki naka la naka naka la amee feebar donc euh, loolu moom Vélingara pour le moment bu dul cas importe yi ñu wax noonu te ñoom ci frontière bi lañ yem amaguñu ci ko d' abord ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ci yàlla musal musal yi bépp Sénégal mi musal bépp ci ñoom doomu aadama. yow ngay maire yore dëkk

ay produits de traitement avec gel antiseptique yon distribué ko ci jox ko association commerce jox ko transporteur yi jox ko à l'époque fekk te fita bombu te ñu jakkay jàkkay jox ko euh, ci yóbbu ko ci jumaa yi ci hygiène euh, solidaire yóbbu fu né euh su ngeen su ngeen fatelo euh, ko dafa am deux semaines comme ça de femme ben jigen bo xamné ne ne infirmière la jóge Thiès dem Vélingara

loolu foofu bi bi loolu amee tam ci quarantaine bi ñëwaat nañu génn ay mat yeneen matukaay yokk ndi ki ki li ñu def même moto Jakarta yi seen arrêt 27 arrêt yëpp yóbbu na leen ay carton gel antiseptique yóbbu leen ay siyo pour ñu lavage jamais def nañ lu ñu war a def euh, comment commerçant impacté yi euh, ki may ki may may na leen ceeb gaaru ceeb bi may na leen ceeb ak gel antiseptique ñoo tam may leen ceeb ak gel antiseptique parce que c'est des gens qui sont impactés waa ki waa service yëpp même rajo communautaire yi jox leen ay subvention pour ñu mën a continuer di sensibiliser parce que am nañ ci di de dëkk bi ñetti rajo communautaire donc jox na leen ay subventions pour euh, gunge leen rek pour wane leen maire bi ñu ngi seen gannaaw ñu ngi leen di encourager parce que sensibiliser mbir mi ñëpp ñoo ko bokk donc euh, ñu en tout cas euh, dañu continuer di di nekk di continuer ci vigilance bobu mais di continuer aussi ci ci ci sensibilisation parce que l'autoconfinement moy moy lépp. damay ñaan képp koo xam ne ne euh, kii nu nit ñi dañu war a moytu génn bu dee bu dee nag euh, soxla la mën nañ génn pour faj soxla bi mais nañ tee xale yi nañ tee ñëpp ci ci biir kër yi nit ñi wàññi seen génn bi parce que bu ñu wàññee seen génn bi cas contact communautaire wala cas cas contact communautaire du am Euh, te te cas te mun ne mun ne leen contrôler parce que loolu rek lañu la lañ mën a def te gis nañ taxawaay président de la république dégg nañ ko démb mesure yu mu jël ñu ngi koy féliciter di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla combat bi incha allah guerre bi dinañ ko gagner bu soobee yàlla yàlla nañu yàlla dimbale pour ñu gagner guerre bi dinañ ko gagner te yàlla yàlla nañu yàlla dimbale mooy ñaar yi ñuy delloon nii ñu mu yem ci ñaar yooyu yeneen ñi ñoo xam ne am am nañ ko yàlla may leen wér ñi ko amul yàlla ñu yàlla musal leen ba mu bañ am feebar. xanaa pour jeexal rek ñu wax peut être feebar bi si commune yi nga xam ni yéen a ngi koy rek parce que xam nañ ne tey yéen seen recette yu si bëri si marché yi lay jógee ki ci yu mel noonu tey ñu gis ni feebar bi tax na ba marché yu bëri tëj nañ ko ndax yéen jëmu leen ci ay jafe-jafe yu metti dèjà da ngeen doon sox ndax jëmu leen ci daanu dëgg-dëgg na nekkee xam nga feebar dafa laal économie monde bi yëpp te ni nga ko waxee sànq ñun en tant que collectivité territoriale surtout maire yi gox ak gox-goxaan yi ñun li ñu am mooy marché bi ak gaaru ci bi bu ñu tëjee bi ba pare marché bi fermé 14 heures 15 heures xam nga amatuñu recette <laughs> donc ku doon soox <laughs> boo boo boo tànk boobu bu damee rek ah, moom moom <laughs> mais incha allah am nañu am na ñu yaakaar ci ci gouvernement bi té dinañ ci waxtaan ak euh, gouvernement bi ak suñu ministre parce que ñu am nañu ministre ko xamné ne euh, taxaw na collectivité territoriale amna dinañ dinañ daje ak moom pour xool euh, impact bi naka lañu mëna jappalé a collectivité territoriale moy maire yi pour ñu mëna vraiment continuer et vraiment di fonctionner parce que impact bi dafa dafa dafa am dafa dafa dafa dafa dafa impacté bu baax surtout recette recette collectivité territoriale parce que euh, bu recette amul ci gaaru ci ci ci gaaru cher amul ci marché bi daa daanaka day ne parce que recette parce que euh, loolu mën na mën na jël quarante cinquante cinquante pour cent des recettes des communes man boobu c'est c'est une idée rek ma ma ma may joxe mais euh, incha allah li ñu li lu gën a am solo mooy d'abord ñu ñaan yàlla yàlla yemali ñu fii feebar bi le reste de engagement président de la action gouvernement dina dina di ni mu jàppale entreprise ni mu les familles les familles les familles les ménages sénégalais li ñu jappalé yenen yenen PME yi inshallah, allah aussi collectivité territoriale dina am sen wal pour ñu mën continuer di di assurer sen service public. merci beaucoup merci.